mbokk yi xarit yi dalee nag euh, jàmm si seen euh, seen euh, live du jour tey ji nag yemook talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weerub février si atum 2023 fukki waxtu la fukki waxtu ak juróom wala ñetti waxtu si ngoon dem ba toftal fukki minute ak ñeent ñu nar si ànd ak Moustapha Diop Moustapha dalal ak jàmm gannaaw ba ñu jéggaloo internet yi si bi lépp retard Safiatou maa ngi lay eh, nuyu bu baax eh, di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan yëpp eh, ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fu ñu mënti nuyoo nag ak fu ñu mënti seetaane soit ñu leen di wax bonjour wala bonsoir selon parti bi nga xam ne moom lañ nekk ci àdduna bi. Mhm. di leen wax ne mbégte lay doon chaque mardi su waxtu wi jotee ñuy ñëw di ànd ak ñoom di def live bile ñu ngi leen ciy gën bu baax surtout ñi nga xam ne déjà maa ngi leen di seen. ñu commencé di ànd ak ñun ci waxtaan wi euh, te wax nga ko sànq ñu xaw a am euh, retard tey. mu mel ni euh, commencé woon na ñaxtu bi ñoom tamit. voilà commencé woon na ñaxtu bi te li ma ci jaaxal ñu ci bari man lañ koy jiiñ quoi. Mhm. xamuñu ne man moom baron mu ne ci ginnaaw mën na koo seede daanaka bi 15 heures di jot fekk na ma ñëw ba toog. ñu ngi nuyu ku mel ne Papi Sakho mu ne Moustapha Salam Moustapha et tout la team de Walf vous êtes les dignes héritiers de Sidy Lamine Niass Papi ñu ngi lay gën bu baax a baax. maam eh, Ayta Thiaw Safiyatu mu ne salaam salaam Moustapha buenas eh, tardes loolu defe naa espagnol la. Eh, Sidi saw mu ne nu sommes prêts Moustapha le noble ak Aïcha Mbaye Aïcha dàq naa ko <laughs> Ibrahima Fall mu ne mag ah, enfin bon Ibrahima Fall nee na Macky dictateur Ibrahima Fall moo ko wax nag waxuma ko. Habib Diop ñu ngi koy nuyu baax di nuyu Xaadim Seck moom li mu wax moom wax dëgg yàlla mënuma ko Euh, jottali mais maa ngi koy nuyu bu baax Sidi Sow mu ne moom mi ngi bindee ca Touba El jum Dioum également euh, kii mi ngi tudd euh, comment Habib Diop wax naa ko sànq Sidi Mokhtar ñaa mu ne bon moom li mu wax Sidi Mokhtar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu kii <laughs> mi ngi reede Baro <laughs> Baro <laughs> Ndiaga Dia mu ne bonsoir Moustapha on vous depuis Québec euh, ca Canada alors di ci profité di nuyu euh, tous les Sénégalais de Québec ak euh, Montréal Sénégalais la yoo xam ne wax dëgg yàlla man cofeel bi ñu am ci ci Walfadjri ak ñi fi nekk daf may jaaxal loo nekk di di waxtaane wala nga koy nga koy yëngatu xam nañ ko ñu ngi lay nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. Euh, di ziar également kii di Yaa Khady Diémé Mamor Mbaye euh, wax naa ko keroog ah moom mm-hmm. euh, je suis di ko gis ci sama live bi mu ne merci beaucoup Moustapha Mamor maa ngi lay ziar bu baax Moustapha Samb également sama turandoo boobule Sidi Mokhtar Niang mu ne Moustapha Diop sama nijaay ziar naa la bu baax di Mokhtar yow tamit sama nijaay nga parce que man sama yaay ñang la sant mm-hmm. aywa kii mu ne moom mi ngi tudd Aïcha mu ne Moustapha la Baobab Eh, loolu moom dafa am ko déggee xam nga kan may wax loolu mm. maam biram wàcc maam biram wàcc moom mooy woowee la baobab yaa xadi jéeme euh, Daba Sey euh, mu ne dafa jot waaw ñun tamit xam na ne jot na mais on est là Daba euh, Ndoye Ndiaye ñu ngi lay nuyu il faut que si Silla voilà mën nañ koo topp Safiyatu waxtu wi tey daf ñoo xaw tënk moo tax duñ mën a nuyu ñëpp mais su ma sañoon les 2400 yi may gis ne ñu ngi se déjà en ligne ñoom ñëpp laay laay nuyu mais malheureusement doo koy man mais ñu boole ci rek ku mel ne Mokhtar Bousso Euh, moom euh, boobu it euh, ku ma miin la ci suñu live bi la Ama moom mi ngi ñuy bindee ca Louga sama grand sama nijaay sama confrère mais sama doom bàjjen également quoi mu ne ma wax fi lu ma neex sinon je fais ma sieste <laughs> d' Ama ak li nuyu baax di nuyu madame Dieng euh, Mamoun Diop également mu ne bisimilah Moustapha 15h jot na Mamoun 15h jot na mais ñun on la là depuis 15h doon xaar suñu technicien yu baax yi ne Mamour de euh, est pas Mamour de Walf Touba Euh, Mamoun Mamoun c' est mm. c' est Mamoun ah c' pas Mamoun. ji euh, ji profité d'ailleurs di di di nuyu suñu mbokk yi nekk Walf Touba yëpp ñoom euh, Mamadou Makhtar Sarr. Euh, Mamour Diop ak euh, toute l' équipe bi nga xam ne moom la ñu àndal. Mm-hmm. mais également suñu euh, auditeurs téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nekk particulièrement ci marché Mbacke boobule nga xam ne ñoom keppaar gi duñ ko du leen raw benn yoon ak sama benn bàjjen bu tudd Soxna Mbène Mbacke ma nga ca Mbacke maa ngi koy nuyu di ko ziar Safeetu yaa ci des. Alors j'en profite également pour faire un coucou à un certain Assane Assane Gueye. kooku euh, mhm. il est de Touba. mais dafa euh, non non mais kooku Touba xayra euh, non Assane Gueye borom baax la donc <laughs> kooku Touba xayra la la nekk. mais dafa jóge Touba Moustapha. Mhm. depuis ce matin mu ñëw fii tey. pour juste rek nuyu et puis rafetlu également liggéey bi nga xamante ne groupe Walfadjri mu ngi koy amal ñu koy nuyu moom. Assane Gueye Assane Gueye. Assane ziar nañ la. sa Touba xayra Moustapha luy ay di jàmbat di euh, dialogue bi nga xamante ne ñu ngi koy euh, doon amal ñu ngi ko ñu ngi ko tàmbali si altine ji euh, fële centre international de conférence bu Diamniadio bu Abdou Diouf. Mhm. ñuy muy ñu ñëw rek si titre bi lépp live di dialogue national les ratés de Macky Sall les discours de la honte. Mhm. mais balaa ñoo dem rek si biir j'ai une question est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la forme du dialogue. maanaam ni nga xamante ne noonu lañ tënkee dialogue bi. Safiatou boo demee ci réew yi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ay réew yu sérieux mm-hmm. su ma dee réew yu sérieux mooy réew yoo xam ne seen démocratie ma ngay dox te ñi ngay développé. Mm-hmm. di liggéey réew mel ne France par exemple di nga dégg temps yële ci ginnaaw war naa yàgg tuuti ku mel ne Emmanuel Macron ne fa dafa dafa doon def benn dialogue. mais jaloog boobu dafay xool les partis qui sont représentés au parlement mooy ñi nekk assemblée nationale. Mhm. parti yooyu mu recevoir seeni i leaders waxtaan ak ñoom. wala yenn saa yi ñu ne day recevoir les chefs des groupes parlementaires waxtaan ak ñoom wala mu ne day recevoir les anciens présidents waxtaan ak ñoom yam ca mais Sénégal réew moo xam ne sa Safiyatu lépp urgence la lépp urgence la réew moo xam ne soo wootee dialogue ña fay dem ñi ci ëpp ci ñoom. ay paa yu am 60 ans jëm kaw la nga xam ne toogaay ba ñu toog déjà sax lu metti la ci ñoom boole ceeg ñu ci bari ci ñoom dañoo bàyyi ay urgence seeni kër dégg naa ku mel ne Mola Morgan <laughs> muy wax ne ñu bari ñu fa demoon ci dialogue ba mënuñoo dialoguer ak seen waa kër mais il le dit comme ça mais c'est pas totalement faux ñu bari ci ñoom dañoo bàyyi ay urgence seeni kër ñu bari ci ñoom ay mag lañ yoo xam ne soo toogee ñoom une heure de temps dañu am problème ñu bari ci ñoom ay waxtuy julli di leen fay fekk tàkkusaan timis ba geewe di leen fa fekk ñu koy rate ñu bari ci ñoom nekk ñoo xam ne lañ fay wax ñu wax kook ñu bañ koo wax du changer dara ci mbir yu xew réew moomu ay safiyatu nga xam ne tey bu ñu déparé jëm-jëm ñaaji googu ñu koy defee soo deful ndànk ñi bëgg a dem Sébikotane ñi bëgg dem Thiès ñi bëgg dem Diass ñi bëgg dem leneen dinañ fekk embouteillage bu dul jeex ci autoroute bi dinañ fekk les postes de péage là nekk suñu autoroute yi nga xam ne ñun rek ñoo ko desee boo demee fekk benn waaye nga jox ko ñaar téeméer mu delloo la affaire yooyu day fees nit ñi duñ dem duñu dikk dans ces conditions là Safietou bu ñu bëggee def dialogue war nañoo seet beneen moyen buñ ko defee bu dul téye nit ñi lu ëpp 4 heures 5 heures de temps ñu toog ku nekk di wax ci wax joo xam ne da leen leer ne amul njëriñ ñoom ñu fay dem di ko wax xam nañ ne amul njëriñ. Mm-hmm. te dinañ ci dinañ ci ñëwaat léegi lu tax ma ne amul njëriñ donc la forme du dialogue au Sénégal. lu mënoon a ñàkk la. ba pare démb am na kenn ko wax mooy ki fa représenté woon l'église. dinañ ci ñëwaat ci son discours mais dafa am lu lu am solo trop lu mu wax. daf ne le temps nous est ñun Sénégal le temps nous est ci wàllu politique. le temps nous est ci wàllu économie le temps nous est ci wàllu santé le temps nous est ci lépp boole ceeg président de la république bi ñu yore le temps lui est compté parce que le 2 avril mandat am dafa jeex pour jàpp une date pour une élection présidentielle pour proposer une loi d'amnistie ñu dem yóbbu ko assemblée nationale voté ko lan moo fi jar dajale junni sénégalais daanaka ci benn salle ñi wax wax joo xam ne jëmul fenn ça aurait été tellement facile tellement facile que président de la république def ni mu defoon ci affaire Covid ba cest à que yeewu suba 9h ne damay recevoir su ko neexee ne dina recevoir parti yi nga xam ne ñoom ñoo am représentant assemblée. dinaa recevoir les candidats yi nga xam ne ñoom ñoom la processus bi concerné parce que ñoom la conseil constitutionnel validé ne ñii ñooy candidats yi te c'est pas rien être candidat à une élection présidentielle recevoir leen pare ne bés sangam lañ jàpp pour def élection mu jeex tàkk voilà c'est c'est la question ce que j'allais te demander Moustapha mooy que ni bu fekkee ne am na candidat yi nga xam ne jàpp nañ ne 19 yii ni ñoom ñoo war a dem mhm. mais est-ce que Macky Sall jaroon na par exemple muy oote mais mënoon na oo ces 19 candidats ñu waxtaan juste rek pour ki euh, pour pour pour pour euh, retenir une date pour la présidentielle loolu mooy li yoon parce que ci suñu réew mi ñu nekk dialogue du fi loi ci suñu réew mii ñu nekk jaloog du fi institution ñi fa demoon toog di wax amu ci kenn ku représenter les sénégalais pour wax seen tour je suis désolé de le dire comme ça ñi fa demoon toog di wax dañu représenter ay kuréel ay kuréel le conseil constitutionnel moom la ñu jox gëddawu ne yow yaay wax ñan ñooy dem ci élection présidentielle conseil constitutionnel non seulement def na ko benn yoon ñu def recours mu génne kenn defaraat liste keneen démissionné keneen résiste désisté mu réactualiser réactualiser sa liste ne ñii ñooy dem élection respecter les institutions les institutions de notre pays comme ni ko euh, euh, le représentant de l'église waxee de muy Philippe Abraham Biram Tine respecter les institutions de la République mooy respecter d'abord le conseil constitutionnel respecter le conseil constitutionnel mooy respecter la décision bi mu joxe décision bi mu joxe mooy 19 candidats yaa ngi nii amul reprise du processus jàpp leen date dem élection ci nu mu gën a gaawee. Mm-hmm. point final loolu tu as raison de le dire Safiatou jërul tëgg ay ndënd. jërul woote sabar jërul woote xawaare jërul woote tànn béer jërul dara. bu la neex bu ko neexee sax le président de la république il prend son téléphone. Mm-hmm. il appelle qui il veut. les 19 candidats là jërul mu leen di woo ñuy ñëw il les appelle ñu wax ko li ñu bëgg moom mu décider d' autant plus que d' autant plus que quand même et loolu dinaa ci ñëwaat le président que ni jàpp daal décret lañ koy defee mu neex mu naqari moom moo koy def donc wa lan moo fi jar rat raté toute une après-midi pour ça. Mm-hmm. et le président man dama jàpp ne dafa am ay urgence yu koy xaar moom. parce que président de la République du Sénégal fu mu toog cinq minutes perte na temps bu baree baree baree bari dans la vie de la nation boole ceeg ba mu toogee son premier ministre mi ngi toog les ministres ñu ngi toog les présidents des institutions yooyu ay assemblée yu kenn xamul yooyu ñu dajale ña nga toog. pendant au moins au moins cinq réew mi taxaw. mais pour lan. pour dégg des gens yoo xam ne lañ fay wax teguñu ko fenn fudul seen bata bànneexu bakkan pour dégg des yoo xam ne lañ fay wax teguñu ko fenn fudul naa bokk. nañ ko bàyyiwaat na bokk boole ceeg boole ceek da ngay jóg da ngay gis ñu jël kàddu ne man chef religieux la nangam tu es chef religieux en quoi dans quoi tu représentes qui. tu es le chef de qui mais ça ça. c'est des question que les Sénégalais doivent se poser. en regardant les gens qui étaient euh, ci ngu foofu noonu waa ji daan woote wal fu tuddee ngund lu nekk euh, jam ñaajo ngund lu ñu tuddee Abdou Diouf mu am ab laaj bu taxaw samp di ndax mm. Macky Sall si boobee dialogue ak ni nga xamante ne noonu nga ko euh, tënkee ndax am na si li bëggoon du tout maanaam xam nga man pour man les Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo te te ça la majorité des Sénégalais mm. l'écrasante majorité des sénégalais yi nga xam ne ñoom dialogue bi intéressé wu leen lenn la ñuy laaj mooy ñu jàpp datu élection yi buñ dee xool li xew démb pour man dañu war a am satisfaction xam nga lu tax parce que Macky le président Macky Sall li mu bëggoon amu ko sinon du mer mer yi muy mer parce que bu sañoon bu sañoon avant muy dem dialogue ba mu recevoir les candidats les 19 waxtaan ak ñoom su demee. ne ah man kat tey ci suba recevoir naa les 19 candidats waxtaan nañ nangam ak nangam ñu mais nangam amul loolu. beneen bi mooy euh, les 19 candidats boo leen jëlee ñaar ñoo ci dem ñaar ñi kenn ki mooy patron amul sañta bañ a dem. ñu ngi mel ne yow rek su ma wootee par force da ngay ñëw mu neex la mu naqari la. dëgg la keneen ki moo doon patron muy Boun Abdallah Dionne day dem donc même Idrissa Seck. mi ñu doon wax ne dina dem ci dialogue ba son mandataire As Babacar Gueye a dit très tôt que ni ñun demuñu et que loolu ñoo waxoon nañ ko sax ba sa Seck defee sa déclaration euh, RTS pour préparer la campagne sa son premier discours de campagne ba mu génne bi nga ko laajee daf ne réew mi moom Idrissa Seck daf ne réew mi il faut ñu réconcilier ko il faut ñu boolewaat Sénégalais yi waaye ka koy def mooy président ba ñuy élire et non Macky moo tax ça m'a pas surpris dem boo gisee j'ai appelé moi-même Asma Bakar pour lui demander est-ce que c'est bien ça mu ne ma c'est effectivement Idriss Seck n'ira pas gisuma ko fa donc am na fulla joo xam ne demul boole ceek les 16 yi nga xamee ne ñoom waxoon nañ ne duñ dem déjà donc deux ñoo ko fekk te deux ñëpp Macky Sall mooy seen patron Amadou Ba moo doon patron Boun Abdallah Dionne moom moo ne fi woon moom mooy double bouton wu Macky Sall bu bësee mu tàkk bu bësee mu fay donc kooku su Macky Sall wootee mu dem mais ça ne ça ne surprend absolument personne mais li ko doon neex tey mooy mu gisoon fa ñu ne ah kii kat mooy représentant wu Diomaye Faye kii kat mooy représentant wu Cheikh Tidiane Dièye kii kat mooy représentant wu Idriss Seck kii mooy représentant wu euh, Mamadou Aliou Dia kii mooy représentant wu Anta Babacar Ngom et cetera et cetera ça l'a pas eu loolu moo tax meram yu bari beneen bi mooy Safir xoolal ñu fa doon jël kàddu ñi fa doon jël kàddu gisoo ci kenn koo xam ne daf naan la man kat maa fi toog représenter parti sàngam nga ne parti boobu partie bu am doole la sauf peut-être le parti démocratique sénégalais te en parlant du parti démocratique sénégalais soo xoolee ñi fa daje ñépp safiyatu njabootu lay Wade la gu dajewaat njabootu ab Ablaye Wade bu waat ak peut-être yenn njabootu Abdou Diouf bu leen bu eh, leen rax ak la vieille gauche bi nga xam ne le PIT ak yooyu nga xam ne dem nañ ba xamatuñ fu ñu jëm ñu dem tafu ci Macky Sall ñooñu ñoo daje jam ñaaju démb. amul keneen et la LD. et la bokk. Mhm. la LD. LD bi des parce que yéen beneen am na beneen LD bu am la nekk ci leneen mais LD bi nga xam ne dafa def boppam xuusma ñàpp ñooñoo des ñooñoo daje jam ñaajo mhm. donc ñooñu c'est des gens qui se rencontrent pratiquement tous les jours et li ci gën a doy waar da ngay xale mais bu ñu la wane woon les images de Senghor en son temps bu daan voté bu daan woote naa nit ñu wuy si ko mu waxtaan pratiquement les même têtes yi nga doon gis sa Senghor gis nga leen ci Macky Sall démb ñoo fi nekk ak sengoor nekk fi ak Abdou Diouf nekk fi ak ab Abdoulaye Wade tey ñu ànd ak Macky Sall. maanaam ba ñuy ba ñu ci ñu ci bari ñoom ba ñuy ànd ba ñuy ànd ak Senghor di politique Macky Sall nga école primaire. maanaam. maanaam demuñu dikkuñu. ces gens là ils ne représentent pas les Sénégalais je suis désolé. ñan ñi paa yi nga fa gis yëpp. mu ñan cité si aw ma aw ma pour di ci lim kenn kenn soo xoolee le dernier rapport de l'ANSD sur la population sénégalaise def ne les sénégalais les sénégalais yi am moins de 30 ans xaw ma yi am moins de 35 ans mat nañ 75 à 80 pour su ma juumul des sénégalais mais ñooñu tu penses que ñi demoon fële dem ñoo leen représenté ay paawu kase ak yeneen jeunes yoo xam ne doon jéem a paapaalu ak ak ak peut des artistes yoo xam ne. Euh, bu seen carrière meloon na mu war a mel danañ tal leneen duul topp ci ginnaaw politiciens yi di daw. mais dix mois keneen du mois keneen ñi nga xam ne le tey xam nga keroog maa ngi naan la les organisations de la société civile nañ ñu may jàmm. mais les organisations de la société civile yi sérieux ci réew mi gis nga leen foofu. ñan nga fa gis des yoo xam ne ils se disent organisation de la société civile pendant que Macky Sall était dans l'opposition il faisait le tour des plateaux notamment Walfadjri gii di wax di wax di wax ba Macky Sall falu falu jox leen poste ñu dem toog ni miig noppi dootuñu wax ñooñ nga fa gis ñooñ kan yow dañ la représenté yow waxaat rek ñi nga gis démb est-ce que représenté nañ la yow représenté wuñ Baro représenté wuñ les Sénégalais qui nous regardent les Sénégalais qui nous regardent ñi leen représenté man nga ne sax les députés yi nga xam ne ñoom leen fal def leen ay député quel que soit lu ñu mën a reproché députés yi sénégalais ñoo leen fal def leen ay député ñu nekk assemblée ñooñu ils représentent les sénégalais man nga ne les 19 candidats là nga xam ne dañu def wuti parrainage le conseil constitutionnel valide leen mu am nañ droit wax parce que même bu fekkee ne sénégalais yi falaguñ leen au moins reconnaître nañ leen statut candidat mais yow un candidat qui se dit spolié un candidat qui se dit et d'ailleurs ces expressions là la presse sénégalaise ñoo gën a tooñ Sénégal parce que ñoo ñoo ko créé am candidat recalé amul candidat spolié amul candidat moo am tu es candidat ou tu ne l'es pas j'ai entendu Bouba Ndour le dire vendredi et sa je l'ai dit ici avant j'ai di mais il faut qu'on soit sérieux boo jëlee Cheikh Tidiane Gadio wala nga jël euh, xaw ma nan Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wala nga jël Alioune wala nga jël Karim wadd wala nga jël euh, keneen ak keneen ñi ñu dee seen ay candidat recalé sa Safiatou ci processus bii ñu nekk yow ak ñoom yéen ci yem rul donc. ay électeurs lañ ay électeurs donc amu ci ci leneen lenn lañ la ëppalee am nañ xëy nañ parti bu leen neexee dem ne ñun dañuy bokk ci coalition sangam te su ma neexoon sax man bu subaa ma def sama déclaration ne man Moustapha Diop dooy bokk coalition sangam ku toog ma toog ku wax ma wax. parti wala mouvement. parti wala mouvement. loolu dong la mais ci processus bi ay électeurs dong lañ ci. suñu leen mayee droit ñooñu ñu toog le président de la république Sénégal toog ñu koy joxar bi naan ko dañoo bëgg ñu reprendre processus bi di xas le conseil constitutionnel. ma ne ma ne ma ne. Mhm. loolu war nañ koo may les 17 millions de sénégalais. Mhm. ñëpp def ko parce que les 17 millions de sénégalais ñooñu ëppale wuñu leen dara ci processus bi ñu nekk électeur lañ ci nga ci électeur dong yaag moom ak ñoom a ci il faut arrêter. d'accord euh, sànq yaa ngi wax ne boobu ba léegi Macky Sall mu ngi mer. Mhm. si discours am yan élément de langage nga siy sentir euh, cette sensation. dama gis euh, l'excellent Ibrahima Anne. bu Walf Quotidien bind ko keroog. ma koy xoolaat sànq dafa am ñaari journaliste d'investigation français kenn ki tudd Gérard Davet kenn ki tudd Fabrice Lhomme dañu benn benn livre moo xam ne journaliste yëpp ko war a lire. dañ ko jagleel François Hollande parce que dañu pendant cinq ans dañ doon waxtaan ak François Hollande ci ay trucs yi demee noonu pendant pratiquement tout son mandat après ñu bind benn livre xam nga ça fait lan moo doon titre livre mm-hmm. un président ne doit pas dire ça président ne doit le président Macky Sall a dit des choses hier que lu benn président warul wax njëkk naa taxaw pale Ibrahima Anne bind na ko keroog loolu moo attiré sama attention d'ailleurs mm-hmm. bi muy def entretien bi ak euh, journaliste yi mm-hmm. man ma jàpp ne journaliste yi fa nekkoon Mouhamed jàll la Alassane Samba Diop ak la jeune femme de la RTS Yakham Mbaye ak Yacine Talla nekkatuñ journaliste depuis très longtemps nañ ma ko baal nag samay ex-patron lañ vraiment je suis désolé j'ai dit que ni ku mel ne Alassane Samba Diop mu toog foofu c'est tout à fait normal parce que il n'a jamais les rédactions mal malgré son statut il fait toujours un travail de journaliste Mohamed Diallo la même chose la jeune fille de la RTS je la vois présenter son journal même si xaw ma ko mais ñaar ñee mënoon nañ toog baal ñu ko quoi tànn d'autres gens au soleil ak une autre personne à la RTS ñoo def liggéey bi su fekkee ne waa Walfadjri xajuñu fa mais bon gis nga dañ dañu dañu bind benn livre journaliste bi ma lay wax ñu ne un président ne doit pas dire ça Macky Sall keroog bu mu jàkkaarloog journaliste yooyu dafa wax benn affaire dañ ko laaj après la présidence fan la bëgg dem mooy lan la bëgg a def ça me rappelle Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder bi mu way naan président yi ñu am yëpp ku ci ku ci ku ci ku ci folleeku génn nga Sénégal dem dëkk feneen et il moom Alioune Mbaye Nder que ni dafa espérer que ni Ablaye Wade moom bu fi jógee dina toog ci réew mi Ablaye Wade toogul ci réew mi mais bon Ablaye ñàkk a toogam ci réew mi aussi am na lu ko jur am na lu ko waral président Macky Sall boobu président en exercice du Sénégal nga xam ne yow tu as encore le pouvoir jusqu'au 2 avril ni ñu koy waxee di ko répété ñu laaj la nga ne le Maroc me plaît Maroc neex na ma suñu président bi fenn waru ko neex fu dul Sénégal. Mm-hmm. fenn waru ko neex fu dul Sénégal tey man doon naa fier ñu ne Macky Sall boo jugee ci nguur gi lan ngay def mu ne mais je serai à Mermoz c'est ma maison. Mm-hmm. wala je serai à Fatick foofu laa dëkk mais Maroc neex na ma boobu jëlee discours boobu teg nga jël bi mu def démb un président ne doit par dire ça pour par par paraphraser paraphraser mes confrères mm-hmm. président warul wax loolu président Macky Sall dafa taxaw mu ne cest à que man loolu dama naan bi mu ko waxee sax ñi doon dialogue war a jóg dem parce que daf ne moom ci coobareem mënoon na jël décret ci lu ko lu ko yomb la noonu la ko waxee lu ko yomb la jël décret bi ne bés sàngam la ñuy élection ku mu neex ak ku mu naqari da nga ciy dem mm-hmm. un président warul wax loolu. et quand il dit defu ñu ma ko seen bopp lañ koy def. defuñu ma ko seen bopp lañ koy def ku mu neex ak ku mu naqari da nga ciy dem un président ne doit pas dire ça. parce que ça le diir c'est se comporter en monarque c'est se comporter en roi or or Macky Sall defe naa loolu la ko Alassane Ouattara wax barki démb que ni c'est un démocrate c'est un grand démocrate loolu la wax. j'aimerais que les seen bopp wax ko à la place de Alassane Ouattara parce que ñoom ils sont mieux placés que Alassane Ouattara pour xam ba xam Macky Sall c'est un grand démocrate waaw wala déet les Sénégalais qu'à cela ne il dit mu neex leen mu naqari leen. mais foofu Moustapha j'ai une question. mooy que ni est-ce que peut-être euh, le fait que mu wax ko xam nga euh, un jour def nañ fii ab live. Mhm. nga xamal ni que ni Abdoulaye Wade ak euh, Abdou Diouf ñu wax mais ba si Famara Ibrahima Sagna joxe doxee tànk jéego. si mhm. la Abdou Diouf si ab julli it. mu invité le président l'ancien président Abdoulaye Wade. Oui. Euh, l'opposant d'alors euh, pour que mu ñëw rejoindre ko pour que ñu waxtaan. Mhm. maintenant ñii ñoom ils ont dit ne ñoom jotuñu invitation carton d'invitation. parce que Macky Sall si télé bi rek la ko waxee peut-être moom moo tax peut-être ñëwuñu. Mhm. Euh, euh, peut-être da doon xaar pour que ñoom ñu ñëw si waxtaan ba si dialogue ba parce que mhm. oo na leen. mais mais Safir. même bu leen oowee même bu jëloon téléphone woo leen. woo kenn par kenn nee dama ngeen ñëw. ñu ne ko ñoo bañ ñëwuñu il leur doit respect parce que Macky Sall doit respect à tous les Sénégalais tous les Sénégalais parce que li mu nekk ñun ñoo ko teg donnuwu ko ci maam donnuwu ko ci baay donnuwu ko ci ndey Sénégalais ñoo daje ne ko en 2012 ne ko ñun bëggatuñu Abdoulaye Wade yow la ñuy fal daf ko président donc moom lu mu mën a wax il doit respect à ces Sénégalais là léegi donc amul droit baal ma rek amul droit taxaw naan leen mu neex leen mu naqar leen muy benn. ñaareel ba doo jëlal discours du juuf ak Ablaye wadd yëpp ba demal ba ca Senghor. tu les entendras jamais parler comme ça. Abdou Diouf son sa personnalité ne dégage pas ça Ablaye Wade Ablaye Wade nga xam ne euh, suñu président yëpp am moo ci dàq wax. lay Wade mais dafa am lu ko yàlla dimbalee woon il parle avec le sens de l'humour le sens de l'humour lool loolu Abdoulaye Wade doon nga xam da daan dem ba ci exagéré mais moo ko jural coono yi ko tegee yi ko ko dal yëpp qu'est-ce qui s'est passé taxawee fii ci benn meeting daan ne wax ne du dem du troisième mandat léegi sax mu ne waa sax ku leen wax ne moo ko wax ngeen ko fu mu ko waxee su leen ko su leen ko génne ngeen ne ko léegi maa waxoon waxet tu te de ça maa waxoon waxet Abdoulaye Wade l'a fait avec son l'humour qu'on lui connaît mais ses opposants de l'époque dañ ko exploité ne maa waxoon waxet maa waxoon waxet ba di awa di def ko fi ay woy soit dit en passant les artistes sénégalais là je pense que dañuy nelaw fan yi quoi euh, man je je comprends pas tout ce qui se passe dans ce pays tu tu tu n'entends personne d'entre eux sauf quelques rares ñu yëkkati seen kàddu ñeneen ñi dem jëm jëm ñaajo di di di wayaan alors mais c'est le problème aussi mais li am solo mooy quand Wade a dit maa waxoon waxet sénégalais yu bari ci lañ ne ah bon maa waxoon waxet du fi faluwaat. mais Macky Sall ce qu'il dit est plus grave que maa waxoon waxee. quest il dit mu neex leen mu naqari leen un président ne doit pas dire saa beneen bi wax naa la ne wax na fi ne Maroc neex na ko ça veut dire que dans sa tête peut-être bu jugee ci fii du dëkk Sénégal Maroc lay dëkk mais beneen bi mu wax mooy doyal naa sëkk. Mhm. mais Safiatou est-ce que tu imagines ce que ça ce que ça doyal naa sëkk. Macky Sall c'est pas quelqu'un boo xam ne dañ koo dañ koo fal directeur de Walfadjri ah nga xam ne quelques personne la jiite su ko neexee mu togg mu jaag mu ne franchement seen affaire yi ma dama cee sonn doyal naa je démissionne je m'en vais c'est le président de la République du Sénégal réew mi nga xam ne nit ñu baax ñu ne tëdd nañ fi réew mi nga xam ne ay nit dañoo xeex joxe seen deret ñii joxe seen bakkan ñii joxe seen alal ñii gàddaay ñi tubaab bi jël leen sànq pour ñu nekk lii ñu nekk tey réew moomu nga xam ne nous sommes 17 million fi mu nekk nii li waa ji wax keroog soo xoolee ñi ñu suul bi ñu indépendant ba léegi ñu ñu suul ñi dee ñu suul leen nga boole koog ñi ne fi ña di dundu tey soo deful naa nga ëpp nañ 60 millions di dem soo xoolee sénégalais yu ñu suul ñun suñu mbokk yi ñu suul ak ñi nga xam ne ñooy dox fii di dund. soo leen soo leen boolee suul nañ ay génération ay génération génération ñooñu. mënoo cee lim lu ëpp juróomi lu ëpp ñeenti nit ne ñoo mas a nekk président ñi mu tudd ñëpp lu ëpp ñeenti nit mënoo ko cee lim ne ñoo mas a nekk président da nga naan Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ci ci 17 millions de personnes soo ci doolee ñi fi nekkoon indépendance ba léegi suñ matul 40 millions danañ ko romb di dem yàlla dimbali la ak bëgg-bëggu sénégalais yi nga bokk ci kaat ñooñu nga leen di xool les yeux dans les yeux nga di leen doyal naa sëkk ay waay waay a doyal ñun ñoo war a doyal mais xool sénégalais neen doyal naa sëkk mais mais mais un président ne doit pas dire ça personne n'a le droit de dire ça aux sénégalais mais les sénégalais yi nga xam ne depuis 2012 ba léegi ñi ngi dund ci ay difficultés les sénégalais yi nga xam ne depuis mars 2021 ba léegi ñii dem nañ kaso ñii rey nañ leen ñii nekk nañ ay handicapé ñii euh, ñàkk nañ seen alal et mais ñooñu ñooñu ñoo war a taxaw ne doyal nañ sëkk mais yow mi nga xam ne le Sénégal t'as absolument tout donné. man damay am sentiment boo xam ne damay toog di xool démb dama toog di xool président Macky Sall mu jàgg ma ne Macky Sall j'ai l'impression que moom dafa yaakaar ne ñun ñun ñoo ko ameel c'est-à-dire il a fait pour nous li nga xam ne kenn mënu ko léegi donc mën nañu xool ba mu nekk mën nañu doyal naa sëkk mais ñun ñun liñ ko defal kenn mënu ko koo defal ci kaw suuf. ñun ñoo ko fal président. ne ko bis bi ñu la falee ñoo yor sa courant ñoo yor sa ndox ñoo yor sa jàngu doom ñoo yor sa lekk ñoo yor sa naan ñoo yor sa lépp ñoo yor sa sécurité bis bi ñu ko falee ñu ne ko soo jaaree xaar yàlla gii ñun ñëpp ñu bëgg fee jaar même bu même bu ñu yoree ay malade dañuy taxaw nga jàll ba pare. bis bu ñu ko falee ñu ne ko tey à partir d'aujourd'hui xoolal ku la neex ngay nommer aux emplois civils et militaires. su la neexee nga jël Safiatou Cissé nga nommé ko lu la neex bis biñ ko falee ñu ne ko xoolal ñun dina la jox kees goo xam ne su màggal jotee demal tibb joxe lu la neex su gàmm jotee demal tibb joxe lu la neex su la neexee nga toog mu jàgg ngay seetaan Moustapha Diop télé ba mu neex ko nga ne wool leen ma ko mu ñëw nga jël 50 millions ne ko am demal amul kenn ku ci man dara waaye ñun ñun ñu ko defal loolu lépp tu penses sincèrement Safiatou que ne am na droit ñu koy xool mu ñuy xool mun nañu doyal naa sëkk mooy muy caisse noire bi ñuy jooy. non mais li ma fi wax yëpp. Mhm. nit ku la ko defal yow. Mhm. war nga ko xool mu lay xool nga ne ko doyal naa sëkk. doyal naa mooy sonn naa quoi sonn naa. Mhm. ba pare ñun sénégalais yooyu ñu lay xool ñu am ay problème ambulance. auto sapeur pompier problème mu faju Pape Mokhtar Diallo bi ngi wax keroog boo demee suñu hôpitaux yi xam ne problème am na fa. malgré tout malgré tout nga jël ay milliards jënd ci avion bees tàq di ko dawal. Moustapha yaa ngi wax hôpitaux sama xel dem ñu ñu toog sama xel dem si xale yi nga xamante ne dañoo am cancer mhm. te jeudi ba jeudi lañ leen di opérer mhm. te parfois matériel bi nga xamante ne moom lañ di moom lañ leen di opérer mooy matériel bi nga xamante ne moom la ñu opérer mag ñi mhm. te jeudi ba jeudi lañ leen di opérer te tey jii nii bu fekkee ne kii bi feebar bi graaw na noonu si diggante bi te jeudi ba jeudi xale bi mën na si ñàkk bakkanam ah, mu doon ay urgence yu bëri yoo xamante ne war nañ ko mën nañ ko lijjanti parmi d'autres nga ne loolu dara gën a koo rëy ci urgence pendant ce temps là le président bi nga xam ne sénégalais yooyu yooyu ngay wax ñu war a opérer ñoom ñoo ko fal jox ko li am yëpp mën na leen doyal naa sëkk daf may rappeler mag ñi ñoo koy nettali nee nañ Senghor dafa dem seeti sëñ Abdou Lahad Mbacké ñoo ne ko seriñ bi man kat dama bëggoon a jël réew mi jox ko beneen génération bu gën a féete ndaw euh, parce que li ma waroon def yëpp def naa ko at yi mayetuma ko te boobu Senghor soixante soixante-dix ans soixante-quinze la wax a wax ba pare sëñ Abdou Lahad ne ko jàkk ci bët Senghor di ko xool mu koy xool mu ne ko xaw ma kan de waaye yow war ngaa gërëm sénégalais yi. Mm-hmm. xaw ma ba xam nag sénégalais yi war nañ laa gërëm wala déet waaye yow war ngaa gërëm sénégalais yi xam nga lu tax sëñ Abdou Lahad ko parce que sénégalais yi dañ koo fal moom sengoor jox ko lépp ba pare sono sonaluñ ko ci dara. déedéet sonaluñ ko ci dara. te li sénégalais yi jox Macky Sall joxuñu woon dixième ba sengoor dixième ba joxuñu ko woon Senghor. ba pare solo sonaluñ ko ci dara. moom président de la république. lu mu bëgg ci réew mi da koy am su bëggee tëj day tëj su bëggee tijji day tijji. bu bëggee tukki ñépp taxaw. ay doomam fu ñu dem dëkk ñépp taxaw ñu def li ñu def a pare nit ñi doog doog a dox seen soxla. malgré tout nga ne doyal naa sekk moo tax ma ne la ça. ça c'est les rate d'un discours. un président ne doit pas dire ça. d'accord euh, ñu des ba léegi ci discours bi waaye ñu ñëw si euh, proposition yi nga xamante ne rote na fa. Mhm. surtout proposition bu chef de l'État. ça veut dire avant may ñëw ci proposition bu chef de l'État dama toog yàlla xam na ko bi dialogue bi am maa ngi nelaw bi dialogue bi di am maa ngi nelaw. ma toog benn sëriñ bu baax jàngalekatu alxuraan bu baax wooye ma ca Touba. ñu koy nuyu au bu baax. billaahi mi ngi may seetaan wooye ma ca Touba ne ma euh, na nga def mu ne ko maa ngi sant bu baax alhamdulilah mu ne ma yaa ngi seetaan dialogue bi. déedéet daf ne ma xam naa ni ma waxee ak moom mu ne ma mbaa demal fekk ci liggéey ma ne ko déedéet maa ngi nelaw de dama doon nelaw mu ne ma kon de maa ngi jéggalu ci yee bi ma la yee yaa ngi seetaan dialogue bi ma ne ko déedéet. mu ne ma laay mu ne ko lu xew mu ne ma ki fa représenté eglise bii de ki fa représenté église bii lii mu wax lii mu wax suñu kilifa yee ko doon wax ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko taxal ma jóg Safiyatu loolu mooy njariñu YouTube bi ma jugee au lieu que ma topp affaire fa fa mu ne dama dama wàññeekuwaat ba fañ commencé di dégluwaat dialogue bi pour mën a xam liñ fa wax yépp avant le représentant de l'église di wax ak après bi mu waxee ba pare li nga fay dégg mooy ñi nga xam ne ñoo fa ñëw ne ñoo représenté sénégalais yi ñenn ñi woowee seen bopp et naa la xamal ne am na ci ñoo xam ne ban ban ndaje may dem lañ jël seeni bagage dem ñibbi parce que mënuñu faa toog di rate seen ay waxtu yu julli te lañ fay wax amul benn njëriñ di fa déglu ay Kumba Gawlo Seck ak ay je ne sais pas quoi quoi ñuy wax lu leen neex am na ñoo xam ne bu buñ ñëwee ci ndaje yooyu am nañ fulla goo xam ne day jël seen i ngaa dem seen yoon je suis désolé loolu loolu télé yi duñ la ko wan mais am na ñoo xam dañoo dem seen yoon boo dégloo ña fa jël kàddu ñenn ñi ñëw woowe seen bopp ay chef religieux nga xam ne yow boo nee chef religieux laa rek li ñuy xaar ci yow mooy même boo mënul joxaar bi président de la wax ko li nga bëgg a wax nga wax loo xam ne dina dalal sénégalais yi mel ni maam Abdou Aziz Dabakh exactement wax loo xam ne les sénégalais yooyu seetaan dinañ am fierté ne kii kat wax na ci lu ñuy dalal wax na ci loo xam ne xëy na mën na dellu si delloo si jàmm. maam Abdou Aziz Dabakh mi ngay tudd mais daana jël ay position yoo xam ne day danaan favorable sax le le pouvoir de Senghor wala le pouvoir de Diouf mais su ko daan wax ñi nga xam ne ñoom la séqal mbir mi mais duñ ci am dara xaar ma yàlla buñ ci am moom parce que dañu xam ne kii yàlla rek a tax muy wax. nitu dëgg la nitu dëgg la. amul kenn ku ko jaral muy wax lu mu gëmul ak koo mënti doon nag nekkal étudiant nekkal magistrat nekkal sëriñ nekkal la neex mais ñi fa wax démb Safiatou ñi du mën a ñëpp par respect mais est-ce que ñi ci ëpp dégg nga ñu wax fa loo xam ne danga naan lii kat sénégalais dinañ ci gis seen bopp. da ngay ñëw ku gis ne la man chef religieux la waaye candidat la chef de parti la dañu war a reprendre processus depuis bi am ku ñëw ne chef religieux la waaye dañoo war a duma dañu war a tëj dañu war a nangam ak nangam. ñenn ci ñoom yóbbu élection ba ba 2027. am ñu la léegi élection yi dañ ko war a bàyyi ba 2027 Macky nekk ba 2027 que yow tu regardes Macky Sall yow nga ne chef religieux nga. ngay dund ci réew moo xam dañ dafa am constitution ak charte yu ko teg sénégalais yi ànd votel ko seen bopp nga ñëw ne Macky Sall violé ko ba 2027 nga teg ko fan nga teg ko fan sa fi yotu may déglu di déglu déglu ba yam ci docteur Philippe Abraham Biram Tine il faut ñu taxaw ci mhm. Philippe Abraham Biram Tine man démb laa ko ma sa gis mhm. démb laa ko xam après ci laa gis ñoom Georges Nesta Diop ñu bind ne moom mooy le président du conseil national du laïcat du, du Sénégal d' li ngay jëkk a jàng foofu mooy l' église catholique au Sénégal am nañ benn organisation boo xam ne su mbir xewee ka fa war a dem wax dañ koy tànn xam ko mu xam xam message bi muy yóbbu mais du ku jóg rek ñëw ne cëpp ne chef religieux laa wax lu la neex ku jóg rek ñëw ne cëpp ne chef coutumier laa wax lu la neex ku jóg rek ñëw ne cëpp ne chef de parti laa wax lu la neex non l'église démb est-ce que dégg nga fa bi bi Philippe Abraham waxee pare keneen ko fa wax ne au nom de l'église déggoo ko fa parce que dafa am organisation boo xam ne moom mooy permettre li nga xam ne mooy la parole de l'église buñ ko fa waxee doo gis kenn ku bokk ci église bi ku ne man de d'accord ma ci wala ku ñëw wax leneen muy benn ñaareel ba sànq yaa ngi dégg ma ngay laaj Pierre-Edouard Faye le conseil national du laïcat li ñu ma expliqué mooy ñi ci bokk mooy ñi nga xam ne nekkuñu ay ay prêtre ay religieux ay sœurs yu demee noonu mooy un peu bu ñu ko waree waxee noonu l'aile civile de l'église ñoom ñooy gérer engagement wu église bi dans la société les dans les positions politiques yu ñu war a jël yooyu ñoom ñoo ci réfléchir ñoom ñoo ci wax mais kooku su waxee su waxee dangay xam ni kii kilifaa wax te lam fa wax safeer bi mu ko waxee ba pare demal ci réseau sociaux yi Sénégal l'écrasante majorité des Sénégalais dañ ci gis seen bopp dañ ci gis seen bopp l'écrasante majorité des Sénégalais dañ ci gis seen bopp te lam fa wax wax dëgg yàlla sa feetu jërul jàng jërul nekk chrétien jërul nekk musulman jërul nekk dara képp ku jël kàddu foofu waroon nga wax loolu Macky Sall mhm. lan la ko wax benn dafa wax loo xam ne bi mu ko waxee ba pare suñu paa yi ñu ci bari dañoo waroon a jël seen mbaxane rek dem génn ñibbi parce parce que suñu ay paa am na ñu ci wax ne conseil constitutionnel daf ñoo yeb am na ñu fa commencé wax di dal ci kaw le conseil constitutionnel le docteur Philippe Abraham Tine bi mu jëlee kàddu lan leen wax def na leen su fekkee ne da ngeen a bëgg wala dañoo bëgg ñu respecter les institutions nañu commencé ñun ñii respecter les institutions respecter les institutions. mooy su fekkee ne da ngeen a toog di xala président de la république mais buleen leen xaar ci ñeneen ñi mooy xale yi ci mbedd mi ñuy respecter président de la république su fekkee ne da ngeen a toog di xalab le conseil constitutionnel mais buleen xaar ci ñeneen ñi ñuy respecter la conseil constitutionnel muy benn mais loolu sa féetu waxu kilifaa ngi noonu wax naa la fii keroog ne la lii du lu bees ci église parce que nettali naa la depuis Mamadou Dia sengoor ba léegi les frères dominicains li ñu joué woon temps wu mai 68 ba Senghor meroon ci ba nee daleen di génn réew mi après Mamadou après Mamadou Dia jusqu'à ba bi ci mujj ma ne la temps ab lay wadd évêque gi daje nañ ci Tamba c'était en 2004 def fi benn comment ça benn déclaration di dénoncer la situation politique et sociale du Sénégal di dénoncer les violences yi nga xam ne moo am Sénégal à l'époque Ablaye wadd moo jël bigam bind lettre tontu. Euh, Théodore Adrien Sarr naan ko moom il est il est malheureux il triste parce que yaakaaroon ne église du wax mukk loolu jëmee ko ci pouvoir am bañ ca jógee mu am benn groupe bu tuddee xaw ma lan d'acier cercle d'acier xaw ma bind ay lettres di menacer les évêques du Sénégal di leen menacer de mort fii la ñu fekk di leen menacer de mort donc ñoom li ñu nekk dañ cee yàgg a ne du lu bees du lu bees heure bu réew mi jaaxlee bu ñu yëkkatee seen kàddu ñu xam ne yëkkati nañ ko du lu bees beneen bi mu ne nañu respecter les institutions mooy bi ci njëkk mu ne nañu poursuivre le processus électoral mais loolu xam nga loolu lan la ñu lan la ñu église di wax mooy nañu respecter juste li con li conseil wax parce que le conseil constitutionnel moo wax ne nañu poursuivre le processus électoral parce que joxe na la liste définitive des candidats pare lool la ñu église fàttali dem nañu poursuivre le processus électoral ba pare mu joxe ci exemple bu yomb bu yomba xam mu ne kaan bii ñu jógee Sénégal dañ ko éliminer ku ko éliminer du Côte d'Ivoire boobu ñu éliminer la lañ wax dañ ñoo sàcc parce que penalty wu Côte d'Ivoire amoon na hors-jeu bañ naan dañoo waroon dem consulter la VAR on l'a pas mais Sénégal du ñibbisi nañ par force dañoo ñibbisi mais est-ce que tax na Coupe d'Afrique bi taxaw est-ce que tax na waa CAF ne non comme ñun xam nañ ne d'ailleurs l'arbitre a été sanctionné l' arbitre bi arbitré match dañ ko sanctionné mais est ce que tax na kaf ne léegi comme arbitre bi sanctionné dañ ko parce que dafa def ay erreur ci arbitrage bi léegi Sénégal ak Côte d'Ivoire nañ ñëw ñu fa balaat mukk du am te du mas a am ci kaw suuf dañu continuer compétition bi ba Côte d'Ivoire dem jëli coupe bi loolu la ñu église fàttali dem. donc là il euh, l'église appelle au pardon. non il ne s'agit même pas de pardon il ne s'agit pas de pardon du tout. il s'agit juste d'une chose mooy conseil constitutionnel décidé na nañ ko respecté. d'accord man fi fi may waxee mooy que quand l'église dit que ni avançons. donc hmm. ñi nga xamante ne jàpp nañ dara seen seen xol. nañu bàyyi bu ko defee bu ko defee. ñu avancer am esprit de dépassement. exact et et et Abraham Birantine l'a di il di processus boo gis mën na am ay erreur mhm. mais erreur yooyu dañ koy pardonner jàll ci leneen mhm. wax nga dëgg mhm. beneen bi mu ne nañu def élection yi avant le 2 avril nañu def élection yi avant le 2 avril te nee na am nañu temps def ko mën nañ koo def suñ ko bëggee li tax avant le 2 avril mooy le 2 avril ci la mandat wu président Macky Sall di jeex man de wax dëgg yàlla ba ma te bind naa ko ñëpp di ko gis ba ma gisee docteur Philippe Abraham Tine wax loolu dama cee gis sama bopp je le dis et je li mu wax dama cee gis sama bopp bu baax mhm. te la fa yeneen chef religieux wax gisuma ci sama bopp mhm. à part peut-être le représentant euh, de la Jamaatu Ibad Rahman je pense à part kooku ak quelques rares quelques rares soyons honnêtes quelques rares mais pour le reste lañ fa wax seen bopp lañ ci gis mais man gisuma ci sama bopp. d'accord donc bravo à l'église bravo au docteur Philippe Abraham Birantine parce que mënoon na faa ñëw ñu ne ko waxal lii muy yox yox ak leen daf ko wax ci fulla ak fayda. ba pare dem toog ñàkkewul kenn kersa ñàkkewul kenn respect mais la mu fa wax Sénégal yi ek ñi ëpp Sénégal gis nañ seen bopp. te sa te safeetu mhm. loolu warul jaaxal kenn su suñu xëyee suba nga gis ci réseaux sociaux yi xale yi naan euh, nu mu tudd ki jiite église bi léegi. Monseigneur Benjamin Monseigneur Benjamin Ndiaye yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. moom laa la doon bëgg a wax ci sax parce que euh, parce que yàggul yàggul dara monseigneur Benjamin Ndiaye génn na mhm. mu sàkku dal mais mu sàkku également pour que euh, ñu ñu ñu wëyal processus bi. Euh, juste pour dire que ni moom li mu li mu wax ça ne fait que conforter la thèse de monseigneur Benjamin Ndiaye. Safiatou ay ay année année année année ci ginnaaw. Mm-hmm. tubaab bi dañu toog mu jàag ñu seet ne l'église dafay reculer dans les pays occidentaux. Mm-hmm. comme en France notamment ñu jéem a xam lan moo tax ñu ne dafa am benn époque boo xam ne les citoyens. dañu toog bu jàgg ñu xool ne ñu gis boog ne église bi dafay ànd ak pouvoir pour leen noot ñu bari ci ñoom commencé di bàyyi seen religion Sénégal gi ñu nekk bu ñu waxantee dëgg rek sénégalais yu baree baree baree baree bari duma ma ne ñëpp soo leen laajee li ñu gëm mooy seen sëriñ si dañuy ànd ak pouvoir di leen noot sénégalais yu bari dañ koo gëm. te loolu danger la sa feetu war naa toll ñaar wala ñetti at ci ginnaaw dama toog di waxtaan ak sëriñ surtout sëriñ Touba. Mhm. Mbàkke la sant. mu ne ma Moustapha ma ne mu ne ma man dama am benn crainte benn tiit ma ne ko mooy lan mu ne ma gis nga bu ñu deful ndànk bis bu fi Macky Sall di jóge sëriñ sépp lay yóbbaale ma ne ko Mbàkke waxal jàmm waay parce que boobu dama doon xalaat ne euh, lim bëgg a wax mooy sëriñ si dana faatu na ma yàlla baal. baara dem si. mu ne ma waxuma loolu de déglu rek ma ne ko lan la mu ne ma dund ak faatu yoonu Macky sàll newu ci ci yàlla la ne bakkan ci loxo yàlla la te suñu suñu sëriñ si ñi ëpp ci ñoom am nañ âge boo xam ne <laughs> faatu lañ gën lañ ciy gën a jege mais faatu moom ci loxo yàlla la mu ne ma li ma bëgg a wax mooy suñu toppee Macky sàll ak nii muy defee. Mhm. dinañ dem ba. Sénégal sëriñ waxati bi ñu gëm ko dina jafe lool. Mhm. mu ne ma loolu laa la bëgg a wax. d'accord te Safiatou je suis désolé de le mais tey sénégalais yi dañuy tànn ne man sëriñ diw moo ma doy parce que gis naa ci moom lu tax ma doy ma. Mhm. mais li ci des yépp sama yoon newu ci. sénégalais yegg nañ ci ba naan man de maa nga ca njàngaleem sëñ Touba ak bu Seydi Hadj Malick Sy la ci des yépp sama yoon newu ci loolu lu ko waral. mooy politique bu bon bii ni ko siit Lamine Niass daan waxee. dugg suñu biir kër yi Sidy Lamine moo ma ko wax fii may dégg ci bureau te loolu daanaka wax sax ñu koy dégg ci télé bi dama wax benn jour mu ne ma Moustapha ma ne ko ah mu ne ma politique tas na suñu kër yi te Sidy bu nee suñu kër yi xam nga lu mu ci daan jublu. mooy les foyers religieux du Sénégal. politique tas na suñu kër yi te boobu les foyers religieux du Sénégal moo ko taxoon muy wax. mais tey boo xoolee li xew démb heureusement heureusement que ñi nga xam ne. ñoom lañ fi jàpp encore yaakaar leen ne ñii ñooy suñuy sëriñ heureusement ñoom newuñu fa woon mais boo xoolee ñi jël kàddu wax ba pare nga xool ki fa représente église wax ba pare mhm. les sénégalais yi koy tàccu les sénégalais yi koy gërëm les sénégalais yi fier ci ne wax mais ils sont majoritairement musulmans mhm. mais loolu warul alerter nit ñi ah warul alerter nit ñi ñu xam ne ñu ci bari ci ñoom ñoom ak sénégalais yi nekkatuñ dans le même monde et ça ragal koo wax ragal ko wax créer problème lay indi parce que wax ku xëy na mooy indi solution mais ku gis ce qui s'est passé à Diamniadio hier loolu ça ça doit effectivement faire réfléchir d'accord si jàmbarte église euh, catholique boobee mu duñ ne guléet ndaxte mm. yàggul euh, tuuti euh, bi nga xamante ne le le pape Benoît je crois. Euh, mhm. euh, génne na ab. Euh, xaatim di wax ne pour homosexuel le pape François donc mais église catholique dafa démarqué wu carrément. de cette l'église catholique du Sénégal. waaw dafa démarqué wu carrément par rapport à ça. mooy mooy li ñu waxoon ci affaire góor jigéen yooyu demee noonu e, exactement exactement de tout le temps. Mhm. de le temps. Mhm. l'église catholique du Sénégal et même d'autres pays même Mali gii. en temps de crise ñu yëkkatee seen kàddu nga xam ne yëkkati seen kàddu te loolu nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax ko dara newu ci. déedéet. parce que bu fekkoon ne euh, Philippe Abraham Birantine mii dafa wax ba pare Sénégalais yi déglu ko gis ne waxu ci luul intérêt wu waa église peut ñu bari du leen intéressé mais li mu ci wax sax yëpp dama lay laaj rek gis nga sa bopp sa bopp. waaw mais loolu la sénégalais yëpp di xaar. est gis nga ci sa gis naa ci sama bopp man mii bopp à pour cent te sénégalais yu baree bari gis nañ seen bopp ki ma la wax ne la benn jàngal sëriñ daara li jàngale alxuraan ca Touba ki ma woo téléphone ne ma demal seetaani ko mais kooku bu ci gisuloon boppam du wax demal seetaani ko mm-hmm. Moussa Fall xoolal très très rapidement waxtu bi mm-hmm. xoj nañ yaa ngi woon si euh, li nga xamante ne moo nekkoon euh, proposition yi nga xamante ne jib nañ fa mais euh, accès go si proposition bu chef de l'État oui léegi qu'est-ce que Macky Sall et ça aussi un président ne doit pas dire ça parce que élection Sénégal Safiatou su amoon le cinq février bii ñu nekk ñu jëm deuxième tour xëy na waa du fekk chrétiens yi ne ci koor hmm? waa léegi kon est-ce que koor gee ñu jëm prétexte la pour ñu bañ a dem élection koor bee ñu jëm est-ce que prétexte la pour ñu bañ a dem élection hmm? julliti Sénégal ñi nga xam ne ñooy seeni royuwaay muy Seydina Mohamed ak i sallallahu alayhi wa sallam ak i saabaam mais xare badar fu ñu ko xeex du koor. wala déet. mu métti lool. xare badar fañ nañ ko xeex du koor. wala déet. Sénégal gii ñuy war di football match suñu gaynde yi wooruñu football fii. xam naa daa da leen Sénégal gii dañuy woor di def lu ñu bëgg a def. Sénégal dañuy woor di maçon dañuy woor di dawal dañuy woor di dem fu ne di jàngi école def lépp. Mhm. waaye léegi ñu ne bu ñu wooree duñ duñ dem élection loolu mooy lan élection dafa xaram. te sax bu ñu wooree ñu ngi def lu xaraam. Mhm. élection dafa xaraam. ah bon lu ci xaram élection. comme bu fois nga nga woor dégg ñuy tëgg ay ay ndënd di tànn béer fii wala ñuy ngénte di tëgg sabar jigéen ñi di fecc nu mu leen neexee combien de fois nga ko dégg ci koor gi. voilà loolu ngay wax ah bon maa la ko wax am na léegi lan moo tax bu ñu wooree duñu duñu duñu duñu kii combien de fois et d'ailleurs xam nga am na ñu fa évoqué ne koor gi ak dàkkawu Medina Gunaas. Gunaas waaw mais bu ñu wootee woon le cinq février day dajeeg màggalu Daaru Muxti. màggal mhm. Daaru Muxti gi bu ñu wootee woon vingt cinq février day dajeeg moom xaw ma même bis bi lay doon wala ñu ëllëg si. est-ce que est-ce que ba ñuy jàpp date ba ba ñuy jàpp datu 25 février xalaatoon nañ ne dañu war a dem màggalu Daaru Muxti. Mhm. est xalaatoon nañ ko. Mhm. Hmm? Sénégal nañuy te dëgg te yàlla rek tax. wax waxante dëgg te yàlla rek tax buñ ko xalaatoo bu xalaatoon nañ xalaatuñ ko woon. te man pourtant maa ngi koy nuyu baax di ko ziar sama benn papa sama wéyjur sama kilifa Serigne Baye Guèye Sylla woo na ma fi ça doit faire pratiquement huit mois xaw ma un an ne ma Moustapha élection vingt cinq février bu ngeen say boo ngeen wax ci parce que day daje ak bésu màggalu Daaru Muxti te moom ni mu ko xamee suñu autorités yi ñoo ko gën a xam fuuf te taxul mukk ñu ne dañuy dàq élection ndax màggalu Daaru Muxti te report bi sax tax na ba benn événement euh, fësatul. oui léegi même hivernage Sénégal même hivernage mais Sénégal man lu tax warul taw ñuy vote ji c'est pas un problème. mais qu'est-ce que cette affaire bi nga déggee Macky Sall mu ne euh, le président de la République Macky Sall ne euh, élection yi dañ koy nañ de toutes les façons nañ ko amal avant mhm. l'hivernage avant l'hivernage ça veut dire que ni le 2 avril moom bàyyi leen ko mhm. après ma xoolal leen diggante fi ak muy nawet. balaa muy nawet sauf que Sénégal xamuñu kañ la bët di bi man xaw ma dañ koy dépendre ci bis je sais pas comment est mais ça pose un sérieux problème. problème. te man dama déglu wax ji démb ba mu pare. ma toog ma am benn sentiment peut-être je me trompe. je que Macky Sall li ko intéressé. du toog ci pouvoir bi après le 2. li ko intéressé man jàpp naa ne du toog ci pouvoir après le 2 li ko intéressé pour man. nekkul sax changer liste candidat yi dugal kii génn kële xëy na loolu mën na ko intéressé mais man pour man li ko intéressé dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sa feetu mooy am temps wu def une loi d'amnistie man mu koy dégg démb pour man loolu moo ko intéressé am temps wu def une loi d'amnistie parce que nee na mercredi bii suba conseil des ministres dinañ fa proposer dinañ ko fa proposer texte bi mooy une loi buy ee les euh, les crimes et délits liés aux manifestations politiques yi fi am mars 2021 ba 2023 après ñu yóbbu ko assemblée nationale assemblée nationale voté ko man pour man loolu dëgg-dëgg moo intéressé Macky mhm. te loolu Safiatou on a l'habitude de dire que l'assemblée nationale est le lieu de débat par excellence les députés vont en débattre certainement mais pour man loolu jaroon na moom président la République mu consulter les sénégalais. parce que quand même dégg naa démb le ministre du travail dégg naa sax Macky Sall da koo mere. Euh, euh, secrétaire général PIT sàmba si mu wax ne ñoom d'accorduñu ci nu mu tudd loi d'amnistie pourquoi parce que nit mënul taal ay bus fii. ay xale dee ci ñu ko ñu naan dañ ko amnistier d'accorduñu parce que mënuñoo lakk euh, bibliothèque université ñu naan dañuy amnistier mais ba mu waxee loolu pare moom sàmba si moom yàlla na ma déglu da cee waroon a yokk ne. da cee war na yokk ne PIT warul d'accord ñu dóor ay xale bal bëccëg ñëpp di ko gis ñu ne dañuy am amnistie ñu ko def lu tax waxu ko ah est-ce que ñi lakk bus boobu ba ay nit faatu ca yàlla nañ leen tëj ci kaso bi parce que loolu kenn amul droit di ko def est-ce que ñoom dañoo am ñàkk ci réew mi droit boo xam ne ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ay xale yuy manifester yor ay xeer wala yoruñu dara ñu dóor leen bal ñu faatu ah autant est-ce que lakk université bii wala lakk bibliothèque université bii xaw ma sax ban lañ ci lakk parce que les gens disent que way lii leen lakk leen lakk ba léegi même même loolu est-ce que dafa ëpp solo les les quelques quatre-vingts gosses qui ont perdu la vie depuis mars ak léegi mars 2021 ba léegi wala déet est-ce que warul woon a wax ne Sénégal réew mii président Macky Sall jiite te man may ministre am di siéger au conseil des ministres waruñu fee nangu ay xale di manifester ñu leen di faat parce que manifester kenn waru cee ñàkk sa bakkan Sénégal rek ngay dégg nit ñu ne kilifa la. mu ne ku fi manifester boo deewee yaay perte. nit Sénégal rek ko ku ko wax tubaab xam pourquoi parce que manifester kenn waru cee faatu. d'accord. est-ce que lii suñu xale yi di def mooy génn ci mbedd yi di yuuxu euh, di di di sànnente ak alkaati ay ay xeer est-ce que dafa gën a garaaw la gilet jaune doon def ca France voilà est-ce que dafa gën a garaaw li agriculteurs yi français yi di def mooy fekk autorité bu lëmm ñu ñëw baare ko euh, nu ñu koy waxee sax baare ko amal seen marche amal seen marche taal ci tali bi dañuy def ay mbaar taal ci tali bi taal toog wala ñu tëdd. Safiatou man di def naa diggante Torino ak euh, Paris. def naa fa 11h ci bus 11h 11h toog ci bis lu ko waral mooy bis bi dafa daw ba Auxerre ñu fekk fa ay agriculteurs fajar fajar boobu leeragul sax ñu fekk fa ay agriculteurs yuy manifester ñu jël ay camions yu baree baree bari rangale ko ci tali bi taal toog ca kenn du dem kenn du dikk par force da ngay taxaw est-ce que alkaati da leen faa fekk di leen sànni lacrymogène pour jële leen fa est-ce que alkaati di leen fa fekk di leen dóori bal pour jëlee leen fa mukk doo ko gis même les policiers en France yi gaañoon ay nit ci manifestation gilets jaunes ya dañ leen a jaar la ci yoon donc autant Samba si war na taxaw wax li mu wax noonu mais war na ci yokk leneen mais li am solo mooy loi d'amnistie safeetu boo ko daan dégg ci yu bari mooy da ngay gis réew moo xam Sénégal am na fi ñett yoon defe naa mais souvent dañ daan dégg réew moo xam dafa nekkoon ci guerre wala yu demee noonu am am peut-être euh, nu ñu koy waxee sax euh, des je ne sais pas comment est des chefs de guerre wala euh, des rebelles wala des des militaires même wala ñeneen ñoo xam ne guerre bi tax na ñu commettre ñu commettre ay des choses atroces des choses yoo xam ne en temps normal duñ ko commettre ay crimes wala leneen ñu ne léegi pour réconcilier les populations dañuy def loi d'amnistie ñu fàtte lépp départ ci zéro réew yooyu ñoo ko daan def mhm. léegi Sénégal li fi xew mars ak léegi ñu nekk duñ enquête duñ def dara dañuy amnistie rek ñu fàtte ñun ñëpp. ah man de xëy na man naa ne buñ ko defee mën na jural jàmm réew mi mën naa ne mën naa ne mën naa ne mën naa ne mais les principaux concernés xam nga mooy ñan. mooy ñi ñàkk seen i njaboot. d'accord ñi ci ñàkk seen liggéey. ñi ci ñi ci ñi ciy doxee ak laago ba léegi. yàggul dara je discutais avec quelqu'un de Pastef mu ne ma. Euh, il y a quelques semaines xaw mois am na ñaar ci ñoom wala kenn ci ñoom koo xam ne Maroc lañ ko yóbbu pour parce que tànk bi ci manifestation yi la ko ñàkk. pour ñu defar ko euh, lu mën a doxee affaire yooyu. mais ñooñu tey kuy laaj ñoom nga war a laaj mais papa yi daje jam ñaajo naan dañuy am ni seeg dañuy parce que ñoom. seen dara ñàkkuñu ko ci dara dara dara dara dara. dara ñàkkuñu ko ci. du boutique ab téléphone sax ñàkkuñu ko ci. yàqaluñ leen dara parce que ba mbir yee am ñi ci ñoom làqatu nañ baa ñu dem feneen. voilà. D'accord. Euh, si ma ne si euh, dialogue boobee am na mhm. euh, comme comme ni nga ko annoncé sànq mooy question bi mu la doon bëgg a laaj. lu toll si seize candidats ñoom ñu ne duñ dem uy ji. Mhm. waaye tamit ñu amaale ab société civile tënku si aar suñu élection ñoom tamit ñu ne duñ dem uy ji. Mhm. waaye si bi lépp société civile kuréel boobee. am na benn kuréel bu ñu tuddee association des commerçants industriels du Sénégal. ñoom tamit ñu décréter ab journée ville morte. Mhm. naka nga gisee lu nu mel est-ce que euh, nan lañ def ba yegg si fii bokk. Safir dama ko wax keroog euh, maam Biram wàcc. Mhm. parce que dañ ma doon wax euh, way chroniqueur ak journaliste yi nga xam ne dañu dugg dans le combat politique créer benn front bu ñu tuddee front pour la défense de la démocratie. Mhm. ki ma ko doon wax ma ne ko mais yéen vous n'avez rien compris. parce que fi ñu toll nii Safiatou ce n'est plus un combat de parti politique je suis désolé du affaire parti politique parce que le fait de voter le fait de choisir son président sa affaire la sama affaire la affaire ñuy seetaan la amul journaliste amul chroniqueur amul commerçant amul menuisier amul menuisier métallique amul amul chômeur amul buujumaan amul kenn tous les sénégalais son concernés et képp koo xam ne yow da nga yaakaar ne soo poser le plus petit acte ñu dem à des élections à date mais également dans la paix et la stabilité du pays mais da ko war a def. moo tax ma d'accord ak commerçant yooyu bu baax. soo demee Guinée Conakry fan yi ñu ngi def journée ville morte te pourtant bu leen neexoon ne ah ay affaire politique yooyu toog seetaan. ci yeneen réew ci yeneen gis nga Sénégal ak président bu ñu mënti am te ci loolu la ñuy jeexalee. ak président bu ñu mënti am safeetu suñu développé wul lii ñuy tuddee citoyenneté citoyenneté billaay dañuy sonn Sénégal gii ngay gis yow. parce que journaliste nga même soo toogee ci télé di wax dañ naan wéy na yam ci les faits mais journaliste xanaa moom du nit xanaa dëkkul Sénégal xanaa amul xam muy xalaat xanaa lii di dalee ci réew mi nii du ko dal moom walla de tey jii nii dangay toog yow nga ne euh, man kat commerçant la man élection yi sama yoon nekku ci parce que politiciens yi ñoom ñëpp a yam euh, ñuy voté ak ñu ñàkk a voté man sama yoon nekku ci bis bu ñuy voté daal dinaa dem voté fal euh, voté ki ma bëgg ñuy manifester nga ne sa yoon nekku ci toog xam nga lan moo lay dal li daloon ñii di ran ñii di ñii di lal fii ci buntu Walfadjri keroog bi bi bi bi alkaati yi di di sànni fii seen lacrymogène buntu Walfadjri am na ñu laloon fii mm-hmm. nu seen marchandise mujjee ñu lakk leen dañ koo lakk ba mu jeex mm-hmm. dañ koo lakk ba mu jeex mm-hmm. ñenn ñi sax ci ay booru timis laa gis ñuy daw di jël di dawale mais loolu loolu xam nga lan moo ko andi mooy le fait de dire sama yoon nekku ci. toog seetaan. d'accord mbir mi mbiru Sénégal la du mbiru kenn. d'accord Sénégalais yépp concerné. te le fait de dire au pouvoir de Macky Sall que ne ñun Sénégal doyal nañ sëkk comme moom ni mu ko waxee et que le 2 avril ça doit se terminer dañu bëgg a fal un président dans la paix et la stabilité de notre pays. et pour la paix et la stabilité de notre pays loolu ñépp la concerné. d'accord képp ku ne concerné wu la. même même boo dee kilifa diine. nga toog ne waxu politique la conseil nañ ko lijjanti mais li nga li nga li nga war a bàyyi xel mooy sa njaboot la ñoo ñoo ci nekk et lu ci mënti am dina law ba egsi la parce que sa njaboot googu suñu demee ba jaaxle ci yow la ñuy ñëw di jooy man fi ma bëggoon ñu daaneele rek. Mhm. mooy un peu nga dellu si si euh, casting bi nga xamante ne euh, présidence def nañ ko invité euh, média yi mais casting boobu est-ce que peut-être dañoo choisir les meilleurs médiums. wala les meilleurs médias wala nu mu demee noonu bi lépp casting. laa laajaat la ko. ah ñu fa nekkoon c'est les meilleurs médias du Sénégal. ah moo ma jaaxal. c'est faux et dix mille fois faux. Mhm. c'est pas vrai c'est pas vrai su fekkoon ne da nga koy xool ci audience ñi fa ne ñi fa nekk audience su tele yu ñu bokk tey da nga naan Walfadjri ne TFM. Mhm. ne Sen TV Bougane Gueye Dany c'est ça la vérité. du terrain soo ne woon les sit mën nga ne Seneweb kenn du ko ci jiitu moo tax euh, wax naa la ko sànq la présence de Mouhamadou Diallo là ba c' est une bonne chose RTS mën nga ne c' média public y a pas de souci Alassane Samba même si sa télé ne fait pas partie des télés les plus suivies du Sénégal mais lui le journaliste qu'il est mais franchement il a sa place là-bas loolu posewul problème mais dama ne Racine Talla ne fait plus du journalisme depuis des années Racine Talla j'ai travaillé avec lui il était directeur de la 7FM man ma nekkoon chef desk politique bu populaire ba ñuy xeex ak Youssou Ndour fii di di saagante moom di xeex fii ci sudi daay Racine Talla nga ci woon ak Yakham Mbaye ñoo jiite woon xeex ba c'était les deux généraux ma ne ñaar ñooñu man yaa xam sama grand la sama xarit la. jusqu'ici le juste ba ba fii may wax yow. ça fait trois jours son chauffeur m'a appelé sama xarit la sama grand la sama lépp la. Racine Talla la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone dama ko woon ne ko Racine xam naa ne xamatuma mu ne ma maa la xam bu baax tous les combats a menés ensemble donc pour te dire que grand yooyu awma problème ak ñoom mais dama ne seen place du foofu les journalistes yi nga xam ne ñoom ñooy dem sur le terrain foofu la seen place nekk les journalistes yi nga xam ne ñoom ñooy animer comme yow ak keneen ak keneen ñoom ñooy animer les débats politiques dans ce pays ñooñu la foofu tey bu ñu ne woon Pierre Édouard Faye moo fa toog wala Babacar Fall wala Maymouna Ndour Faye ça pose problème à personne c'est leur job de tous les jours mais kañ nga gëj gis Racine Talla yor micro yow il faut arrêter. d'accord mu mel ni leer na fii nag euh, la ñuy yem ak yéen ci seen euh, live bu Moustapha. ñu leen di jox euh, dig daje beneen talaata. alors Moustapha ñu bàyyi la nga tàggu jërëjëf Safiatou maa ngi lay gërëm bu baax yoo tamit euh, di gërëm ñi ñu doon seetaan ñëpp tey def na ne toll nañ ci 15 minutes ñu doon suivre en direct sur la chaîne YouTube ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax incha allah bu maax deeg jàmm ñu dajawaat fi d'accord yéen mi ñu leen di sant di leen gërëm di leen di jox daje si beneen ayubés seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam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 seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen